tata famomilian jama wala leñin pengota coronavirus musasa sotoringonsi andin amala ñi mukkelati wala ñi mu musulati amay sibo ñoto mo wili jama fata findu banko kan wala leñin sasa soto andin ay faale coronavirus man jaral soto bari fanan ak kibar bi ma mumunti ay pengo soto le Mention GANAPSA. And definitely it's important that Gambians know. Is it true to say that you are one of the founding fathers of NAPSA? Look at the camera. We are one of one of the founding fathers of NAPSA. So NAPSA, well, that was your yeah, we know, So we were invited one time. make of more happened on make of like the um, National Youth Conference, Conference. I don't know if it's National Youth Conference and Festival. And Festival mm -hmm. every four years why Lorula won, so Lorul Mohe won, and then we were invited to go, and all the head boys and head girls in the continent were invited by the, by the, you know, the former president. So we went there, and so it was just, it, I don't, I don't know whether it had happened before, but it was just this moment where you know, you see that we all had one thing in common. mm -hmm. we all had this, this thing that we all want to see that our fellow students, our fellow, you know, Gambians, ñoo have ne mënuñu ñoo fay seen school fees wala ñoo I'm amuñ voice amuñ platform ak yooyu noonu you know you know, ñu ñëw together you know, it's good if we have this um, organisation formed and so it was formed. Penda NAPSA was a pre-calculated move. former président Yaya Jammeh ak ay ñoñam ñoom Baba Diop dañ doon bugg a damma fi gamsu ñu ne nañ invite head boy yeeg head gaal yi pour dem together finance leen jox leen kusta yu baax yu toog ñu dem bokk ci nekkof is that what happened loolu noonu ñëwutoon suma xel lu ñëw suma young people ñu ngi together and ñu um, go to all the schools di def sensitization programs on different issues that were affecting young people then so man man loolu la ko how about the notion ne Yaya Jammeh daf daan seet janxa yu njool yi janxa yu rafet yi janxa yu xees yi ñu ñu la daan mun a provide all these opportunities we've seen ñoom Touva Diallo ak ñeneen ñi di testify ci TRRC bi saying were head boys and head girls, mm -hmm. and then we had people like Elizabeth, mm -hmm. you know, Roberts, mm -hmm. Robert, nice and all of that. While Nepal, Nepal, all or hairs. ñu ne yow yaay woon physical therapy yaay jame loolu am na ndax amul njó njóobu yaay woon physical therapy. <laughs> Uh, well maa ngi doon yeah so yeah the president of the country everywhere around the world lu mm. ko ne oxo lu ko jot lu ko okka lu nekk askan bi dañ ko dee xam ci moom waaye su nekkul loolu sax here xel dafa tey penda realistically because of yiñ jiiñ yaa jam waaw in the most general term dama daan machine yu daan use is from the hospital mooy ultrasound ak yooyu noonu maa ngi ko doon use waaye lu ma bëgg a rek nit ñi lu gaay di xelaat ak lu gaay di ak man I have no control over that Muna nañoo foog lu nekk of course so many TRRC bi has revealed so many things You have even man sa I didn't know that they were happening and people were saying that lii ak lii mu noonu waaye to be honest with you man xaw ma ne yooyu were were happening because it did not happen to me I have to be I have to be honest. te mooy ndax soo demandi ko tërit yaa ak moom ak yàlla rek kay nekk ci nii bi. no sometimes people are there sometimes people are people go back back and forth in and out comme ma ko waxee jabaram dafa day nekk yenn saa wala muy dem ak a ñëw in and out people go. Hmm. you know ñoo xam ne you know dañoo liggéey dañoo ñëw collect dara dem ak a ñëw wax dëgg. Um, hmm. yeah. asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ma sante yàlla julli si yonent bi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax comme ni ma leen ko waxee rek janax dee bari pax muus day mun a wax ñeew ah, kon nag jamono ji nag dama ne am na li nga xam ne nag moo lime réew mi ah, gars yi di ko wax ñii di ko ñiiw ñiiw ñii di ko ne ndax am na ndax amut ah, bu boobaa nag dinaa toog ak ki nga xam ne nag mooy ndey mbila bi su ko defee nag mu nar a ah, wax ñu ndax loolu am na na amut waaye balaa ñuy dem si loolu rek ah, fan yii si gannaaw ah, ki nga xam ne nag mooy Fabakary Tombong Jatta mi nga xam ne moo amee li nga xam ne mooy APRC parti bi nekk seen i njiit fan yii si gannaaw ñëwoon na si office bi ki nga xam ne mooy Pa Ousmane defoon ak moom face à face moom nag mu wax ne su dee moom mooy woon lawyer Ousainou Darboe di vice président bi dina def li nga xam ne mooy resign su dee nag moom mooy woon ki nga xam ne nag mooy président bi dina daxa ki nga xam ne mooy Ousainou Darboe kon a ah, two days rek leen ci tek rek lolu am gay ñuy wax ndax Fabakary mi ah, ndax mom waliw la ndax du waliw ndax lan la bu boba ma laajte ko ko nettali islam laamañu borom la daxé nuyu na la. feyna la Fatou again ma ngi gërëm ah, Gambia Talent sen contribution bi to uh, information dissemination entertainment ak youth empowerment is is appreciated and highly applauded. waaw Fatou euh, man maa ko waxoon ma ne man de su ma nekkee président Adama baro balaa Ousseynou Dabo di resign naa ko daa te su ma nekkee Ousseynou Dabo tam balaa président Barrow di ma daaxa dinaa resign unfortunately for Ousseynou Dabo bañ naa resign te xam na ne am na problème ak Barrow ba ñu daaxa ko his credibility léegi mu ngi at stake because li xew mooy boo gisee président di tànna nit pour jox la euh, place yi ministre wala vice président is based dafa based on sa mun-mun bi ak sa loyalty bi soo boo boo demee ba sa diggante ak président bi daal olante amut euh, loyalty amut yow looy xaar foofu because président am na droit ñi mu bugg a mooy ñoo xam ne they are efficient and they are loyal to it so far loolu man xam naa ne loolu manqué na Gambia Gambian si yëpp amoon nañ ko so balaa ngay toog ba ñu daaxa la doo resign honorably ba yoo nga nga toog ba ñu daaxa du mun a wash himself out of these problems bugg a place bugg a place ba ñu daaxa la te yoo xam mu ngi wax yëfi eh, président Barrow ak eh, li tax mu daxa eh, Ousainou daabo ak eh, president baro digantem ak APRC degana lu bari wala xam nga lima lima moy ñun APRC first of all dañ dañ ñaan yalla yalla musal ñu ñuy tok ak wa eh, askan bi dinañ dinañ fenal lu ño wax rek suñ digante ak yalla duñ musa fenal xana doomi adam lañ mën nañ juum tuuti rek but lu xew moy, UDP li tax ñu bari di di daw UDP am na ñeneen ñu fa nekk ñoom xamuñ gannaaw gannaaw saagante di di di character assassination ak ak lu bari tax na ñu ñu baax ñu bari dañ toog téye seen boppa soo dañ war a dañ war a look into themselves ne jamono ji politique bi amut saagante amut teesante amut euh, character assassination lu xew rek issues yi lo what what are the issues in the Gambia nit ñi lan lañ bëgga yo ba lo am pour wax ko nit ñi so ñu olu la pour jox la place bi ba du sagan nit ñi di tessante ak nit ñi di caractère assassiné nit ñi lolu amatu Gambia yeen sen jamono bi APRC nek APRC ndax yeen do len daan def lolu non manam di xassante di ngañante ndax APRC dum daan def lolu yo yo man nekona APRC from 1990 since bin commencé gom gom gom na ne ken duma musa dega man mangi sagan you know ñun dañ kom ne we have issues to uh, mun nañ disagree with you you know mun nañ ñaaka agree with you lolu part of politics la but this sagan nit ñun luñ gom moy respect people's opinion but you have the right to disagree with them you know ñun lolu lañ gom pour sagan nit def nit ñun ñun dedet lolu ku ko def APRC ñun ñun sant ñu la ko Those, that's, those are our principles. But I think it's important tam um, Fatou pour ma leeral ñeneen ñi ñeneen issues yi ñoo xam man loolu laa dégga dégga déggoon naa ko si audio whatsapp audio si euh, ñoom maag jaane di wax lu bari dañ wax and I think it's important. baax na baax ok baax na jërëjëf ah, uh-huh. ah, nu ma leen ko waxee rek janax bee bari baax muusee mun a wax ñeew a ah, toog ak ki nga xam ne nag jamono ji nag ñu ngi wax lu baree bare si moom ndax am na ndax amul bu bu baax honorable am na ñu bari ñi nga xam ne wax neen ne li nga xam ne mooy baro lu mu daaxee ñaari UDP ministers ak ki nga xam ne mooy vice président bi was politically motivated yow lan mooy sa réaction si waaw euh, xam nga Fatou ñu bari euh, comme li ma la ko waxoon rek te ñaa xamuñ ma tam mm-hmm. man am amee free born free born mooy rek man suma dur bi soppiyoon ne le yeneen leneen yi duma ko mun a def mm-hmm. in this world mm-hmm. mooy di tappale mooy di fenal nit mooy di yaaxal nit loolu mënuma ko wala nit di ma dugg loolu I am I am I am too I am things you know ñi ma xamut mun nañ mun nañ wax waaw comme lim li ko waxee rek président Adama Barrow moo daaxa euh, former vice président Ousseynou Daba ak ñaari ministres dégg naa gars yi ne Fabakary moo demoon si Barrow mu ne mu ne ko daaxal gars yi hmm. loolu loolu waaw dégg naa ko ba loolu du suñu affaire ñun ñoo baro baro mooy suñu président rek bot ñun suñu pati bi ak euh, pati moom fu mu nekk bokkul bot ñun dañ ko ne baro is our président président Adama Baro mooy suñu président te président Adama Baro ñun gëm nañ ni soo fa mooy président am na droit pour daaxa any cabinet minister if euh, su fekkee ne is in interest of the people yi ne man maa ko daxal ma ne waaw man am naa doole di di dem si président ne ko daxal diw sangam rek ñu daxal loolu loolu man sax duma def loolu balaa maay laata def loolu soo ma laajee suma opinion naa la ko wax bot du ma dem di wax ni ñu ne daxal diw sangam di defal li déedéet bot ñëpp xamoon nañ ne UDP ministres si ak ba ak président Adama Barrow they were at loggerheads so naturally di president of the republic du mun a euh, antan loolu mu appoint la based on your eh, effectiveness and loyalty mu gis ne loyalty bi nekku fa ngeen nekka di di troante eh, certain words waay waay na la daxa ku dekka la na la daxa su fekkee ne man la sax dinaa ko da naa naa naa leen daxa so loolu loolu mooy issue bi ñun <laughs> euh, li li li man li ma xalaat ne moo moo li yëpp mooy UDP ñoo doon wax ne président Adama baro jaatu jaatoo président Adama baro kaani président Adama Barrow ñoo doon saaga ñoo ñooy ñoo doon ne ñoo nekkoon si nguur gi eh, lu lu lu baax loo mun a xalaat wax nañ ko si Adama Barrow ñoom ñooy toog léegi ñu ne Adama Barrow baaxul Adama Barrow lii Adama président Barrow lii ñun soo ñoom loolu lañ foog ñun we have the right as a political party pour waxtaan ak any political party dafa depend on ndax d' accord nañ wala d' accord ñu but ñaaka waxtaan kañ ñun bokk bokkuñ si loolu ñun we we are open to any political party to dialogue on the way forward for the Gambia if there are possibilities where we can come together fine if there are no possibilities fine but li ñu xam rek mooy ñun we are the most formidable party in the Gambia kenn du kenn kenn du ñu jël teg for right waaw loolu dañ ko bëgg a setal But we are open. We are open. And we believe in the welfare of Gambians. te ñun gom nañ ne président Adama Barrow mooy suñ président te ñun liñ gis léegi mooy on the whole président Adama Barrow problème am bi yëpp UDP la woon ñun loolu lañ ko gisee di problème am yëpp UDP la waaw cause UDP joo waxoon ne Adama Barrow bon na baax na léegi ñu ne bon na soo soo liñ xalaat mooy lu mun a xew fii loo xamee daal bonoon na UDP mu ñu ngi si. waaw bu boobaa rek ah, dinañ gën a ñëw ah, li nga xam ne nag mooy waxtaan bi ma bëgg laa laaj président Adama Barrow bu dee UDP ñoo ko ekkati woon léegi comme noo ko waxee rek UDP daaneel nañ ko ah, foog nga ne président Adama Barrow ban parti la bokk jamono ji ban political parti la bokk. man li ma xa suma xalaat bi mooy président Adama Barrow bokkul si benn parti suma xalaat asan naaw góob ma xalaatuma ne dafa bokk si benn fu muna a bokk sax moy won udp boot xamna ni nekatu udp because li xew nañ fàttaliku li isi problème bi President adama baro is the president of the republic of the gambia mu ngi yon ci parti udp on, on, uh, si, si, si kaw lañ ko tànn as an independent candidate for the presidency muy dem dem dem mu yaakaar ne soo man pi udp la nekk nekon, so xamna ne su ma ñaareel taam su UDP di tànn keneen man la ñoo tànn ah UDP fel ne déedéet ñoon duñ la tànn it's not warugal du warugal bu ñu tànn la moo isi yoon différence bi ñaareel bi président Adama Barrow dafa am amoon dis Barrow youth movement UDP ne Barrow youth movement war warta am man loolu daf ma jaaxal Babakari youth movement Yankuba Koli youth movement